dal leen ak jàmm mbokk yi lu gën a fës coti yéenekaay yi bokk na ci feebar bi ñuy lam-lam yi am virus lam déet te mu sonal lool nappkat yi ak jéye yi mbëkk mi def loolu la yéenekaay yu bëri xëyee tey yéenekaay bii di la Soleil xëy wax ci mbir mi nga xamante ne moom moo sonal nappkat yi di feebar bii di jàpp seen der bi di ci def ay picc muy toj di def ay góom ba waral ma bënd ci xëtam bu njëkk le recherches orientées vers le filets de pêche waaw journal bi naan lépp lu ñeel résultat yi nga xamante ne moom lañ doon xaar naan ay pollution toxique la maanaam ay tooke yi ñuy sànni ci biir géej gi loole yépp dara amu ci ndaxte centre bi ñu naan centre régionale de recherche nekko écotoxicologue et sécurité environnementale moom lu muy xelal ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram mooy ñu jëm a xool càmbar yi ñuy def yépp jëmale ko ci mbaal yu nappkat yi di nappee ba tey ci biir yéenekaay bi ñoo ngi xam le ni ginnaaw càmbar yépp yu ñu jot a def lenn rek lañ mën a def jamono ji jéem a xool mbir mi jox ko ay toxicologue ñi nga xamante ne seen xam dafa màcc ci wàllu tooke ñoom seen waa centre bi naan mbaal yi si seen jëmm bopp lañ war a jël yóbbu ko fa nit ñi càmbar ko jéem a xool ana lan moo ciy tukkee ndax ñu xam ana lan moo waral feebar bi libération naan diiru fukki fan bu ñu gisee feebar bi ba léegi kenn mënagu laa wax lu leer ci mbir mi ay prélèvement maanaam xool mbir yi càmbar gauche ak droite def nañ ci téeméer laa lay wax nii mais ba tey kenn mënu laa wax ne fii la mbir mi nekkee waaye daal xel yee ngi laam-laame ne lenn daal waral na moo ngi jàpp nappkat yi journal bi di ci yokku naan lu sole bind dëgg lam de ndaxte tey ñëpp seen xel dafa dem ci ñi seen xam-xamaa ci ci wàllu wér-gu-yaram ñoom ñëpp nañ ñu dogu ne dañ ko war a jox ñi nga xamante ne ñoom dara ñoru leen lu dul di saytu wàllu tooke ñoom daal ñu jël mbir mi def ko seen yëfu bopp xool ana fan la mbir yi nekk yéene kaay bi di enquête moom it xëy ci wàllu wi ni mel naan le mystère enveloppe toujours l'origine exacte de la maladie maanaam feebar bi nga xamante ni nappkat yi jamono ji dañ cee donte ne sax mun nañ ko jox spécialiste yi waaye càmbar yi du doy fépp fi nga xamante ne si ni boroomi xam-xam daf cee ne war nañ ko koo jox ngir ñu amal ñu ay résultats yi leer yi ñu mun a teg suñuy gët waaw du am benn xaarma yàlla laas naan càmbar yi bëri na de waaye daal lu leer ba leer mooy que ne njàqare bi moo ngi continuer jamono ji ñu dëkkee caaro yaraax ci côte bi daal kenn xamatul sax fan ngay toog wala sax naan lan ngay def ndaxte feebar bi def leen naa tiital bi peeru tiital ñoom ji wax leen feebar bi foo lay jugee ak ana lan moo koy faj yéenekaay bii di la Tribune xëy wax ci beneen xët mooy lu ñeel wàllu mbëkk mi naan donte ne sax dañoo jàpp ne mbëkk mee ngi wàññeeku waaye lu am ba des mooy bis bu yàlla sàkk di ñee ngi dem de te loo ci xamul ñi bëri ñoo ngi ci ñàkk seen bakkan te dafay mel ni sax mbiri daa méngoo ndaxte boo xoolee njeexital ay bis bii nii ñu génn lu toll téeméer ak fanweeri doomi aadama suux nañ ci ab gaal loolee nag nduroog li nga xamante ne si ni moom di téeméeri ndaw yi ñu doon laam-laamee ne dañoo réer ci waax yi ginnaaw bu ñu ay bis ci biir la turbine lu mu wax deug la te jamono ji ñuy ñàq seen bakkan ci mbëkk mi jéggi na dayo de ba waral mu naan la tragédie de l'immigration clandestine continue d'endayer le Sénégal mooy ñuy ñàq seen bakkan jaaree ko ci mbëkk mi daal ah ba léegi moo ngi wéy di am de te sénégalais ñoo ngi koy naqarlu ba fu naqarlu yam téeméer ak juróom fukk ndaw yi nga xamante ne dañoo jóge mbuur dalee fële ca Cap Vert ah loolu daal naqari na lool loolu daal teg na njàqare askanu Sénégal mi nga xamante ne seeni doom ñoom ñooy jël mbëkk mi bii di l'observateur naan loolu tax réew mii di Espagne ngir xex mbëkk mi mo waral mu yonne ay takk de réew mi di Sénégal ngir ñu lëkkaloo sen doole def sen kemt lay kàttan ngir xex lolé dak ki xamlé nak xabaar di ministre espagnol bi ñu dénk walu affaire étrangère mom mi nga xamante ni ki dem mo ngi won fi ci Sénégal l'observateur yamul foofu àdduna ci ñàkkum xey budul jeex bu ndawi Sénégal yi di jankontel ba tax na mu bind ci xëtam naan l'échec de l'État sur la question de l'emploi des jeunes l'observateur nan lu ko dalee ca maître Abdoulaye Wade japp ci président Macky Sall téeméeri bërëb yu taxaw ndaw yi ñu am xëy daal nañ ko fiy teg mais daal dafa mel ni bërëb yooyu daal dara daal ñu ko ci biir réew mi bis bu yàlla sàkk dañuy gën a ñàkk xëy ndax te résultat yi du lu ñuy jeex dafa ne fàng ci suñuy gët ñu koy gis ndaw ñi ci bopp poto làmp yi la ñuy toog di ataaya waaw dàq fee débat débat politique nag vox populi naan réew mi di Espagne ginnaa taxawu daal ngir xeex li nga xamante ne moom moo di mbëkk bi ndaxte seen ministre bii ñu dénk wàllu bitim réew Arantxa la Laya moom xamle na ne ñoom bis ni ki tey dinañ def lépp li nga xamante ne moom di seen doole ngir xeex lii di mbëkk mi képp ku fas yéene dugg seen biir réew mi jaaree ko ci wax yi daal ah, dinañ jàmmaarloo ak yow de te lu ci tukkee ñoom dinañ ko gore yéenekaay bi di enquête dellusiwaat naan à l'heure de l'immunité collective muy ciy dellusi rek ci li nga xamante ne moom mooy deltu ginnaaw bu coronavirus def ci biir réew mi di Sénégal mu mel ni daal coronavirus amato fi doole ak ki bës sax def ko fee ñàkk faf yéenekaay bi naan lëpp lu ñeel ay mesures rek ki pexe yi ñu jël ngir xeex coronavirus askan wi dara def ko ci respecté wul te loo ci xamul nag coronavirus a ngi deltu ginnaaw rek kaa ya ngi wàññeeku ñu nekkoon Sowetaas a ngi wàññeeku kenn ñàkkatu ci bakkanam léegi nag dëkk boobee nañu ko leeralal ba waral yéenekaay bii di enquête te dénk lantinooram docteur Moussa Thior moom muy xamle ne deltu ginnaaw gi coronavirus di deltu ginnaaw du yam rek Sénégal de fépp ci Afrique subsaharienne bi lay doon ndaxte coronavirus daal dafa mel ni ah, a ay bisa may waaja jeex mbokk yi fii la ñuy yam ak yenn lu gën a fës jot yéenekaay yi jaa ngeen jëf